ici avec la présidente de zone et euh, le coordonnateur de comité Ce li tax coordonnateur c'est am na et ñu ngi plus de 200 comités montés ici à Kaolack pour le compte de l'Alliance pour la République Nous euh, def leen en zone divisé en ay zone mu am ay présidente de zone je l'ai ko fi Nous ñoo coiffé toutes les euh, toutes les les présidentes de comité Tay, dafa besbo bu am solo ci ñun muy veyu cleaning day ñu gën ko xam ci journée bo xamné journée nationale de propreté la le président de la république santaane ko chaque premier samedi de chaque mois ñepp ci Sénégal ño wara a ba mu set seeni kër seeni gox kër yi ci biir kër yi

invité ci mairie bi nga xamné tay mën nañ né moy maître d'ouvrage wala maître d'œuvre ndax mairie collectivité yépp tay sen compétence yi euh, nettoyage daf ci bok, gestion des ordures daf ci bok kon lolu taxna mairie jouer ci rôle bu am solo tay docteur Tierno Dieye mo fa représenter mairie bi ma nga fa ci débat bi di wax fan lañ tollu parce que bo déggee ñuy wax nag désencombrement du tay la commencé du demb la commencé depuis presque deux ans la commune de Kaolack mu ngi ci processus de désencombrement désencombrement nak do xey rek ne nit ñi jog leen da ngeen di joggé fi da nga leen di wutal fu ñu nekk lolo tax depuis daw, wala mën na né sax ñaari at ci ñu ngi wut ay site am site yi ba pare défar ko war ci def courant def ci ndox daggal leen ko morcelé ko ku nekk ñu bindal la sa tour nga am sa parcelle ñi ay mécanicien lañ ñi ay jaaykatu de détachées lañ ñii ay oto la ñuy yore di chauffeur di dawal di ut fu ñuy gaare loolu yëpp ñu ngi koy liggéey ak fourrière bi nga xam ne ñu ngi koy waajee taxawal fii ci Kaolack pour rek mën a boole action yëpp di nga xam ne mooy tax Kaolack set. tey nag dañu ne woon dañuy jàppale militant de base yi nekkul activité maire yi mais activité politique la tey jàppale sunu militant yi ci biir APR ak coalition bi yëpp ñi nga xam la grande majorité présidentielle. ku ci nekk mën a organiser suba benn nettoiement boo xam ne ci sa biir gox lay doon sa zone yéenay seet quartier bu ngeen bëgg yen comme ni ngeen àndee jël seen matériel na ngeen waxtaan fii xool ne suba fii la ñuy dem nettoyer ji ñi ciy des ñii ñëw garage Nioro ñu ñëw garage Nioro mais ñëpp mënuñu ñëw garage Nioro na am ñu des ci koñ yi nettoyer parce que koñ yëpp lañ bëgg suba mu set bu ko defee matériel bi ngeen jël ko yóbbu ko ci fi di nettoyer le matin su fekkee ne da ngeen bëgg a ci dimanche bi ngeen jëlaat dem ci benen gox ba seen zone daj mais def ko ci bir and ak solidarité ak déggoo ak jàppalante looloo tax ñu boole matériel bi par zone dinañ ko renforcer nag mais lii commencement la ñu ñu investir à peu près 2 millions de francs CFA boo xam ne jëndee nañ ko matériel euh, joxe ko mooy li ñuy joxe looy yi wax nañ ko léegi ñetti brouette ñetti brouette defe naa nag brouette yii nag du brouettu yi nga xam ne boo ci defee tuuti mbalit boo poussé roue bi damm jaar na le kii brouette yu baax yi la euh, def nañ ci ñetti brouette ñaar fukki bale juróomi rato ñaari peel ñetti paquetu masque parce que masque yi dafa am solo ak euh, ñaari peeru gant pour que ñi nga xam ne dañuy yore peel wala rato yi ñu mën a jël gants yi wala ñuy tibb ay mbalit ñu mën a sol gaa yi ba pare te dara du leen ci ci fekk.